wa rahmatullah maa ngi nu waa Sénégal yëpp jiital nuyoo bi nag suñu sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy le président du PUR waaye nim ñu gàttandoo woon keroog Thiès nim ñu gàttandoo woon Tiwaawoon bañ ko fa fekk jee noonu laa koy gàttandoo tey bu mu ne asalaamu aleykum wa dafa ne yaa rasulullah yaa rasulullah ne yaa rasulullah ñetti kàddu yi lañu gàttandoo keroog Tiwaawoon moo capitaine maa lay nuyu di ñaanal yàlla yàlla guddal fan wi yàlla dëgëral taxawaay wi yàlla sutural la jàppale la bi jaayir saydi wujud sallallahu taala alayhi wa sallam suñu maam maa lay nuyu di la siyaar bu wér maam Cheikh dañuy sant Cheikh Tidiane yu muy toog nga xam ne moom la sëriñ bi booleel ci conférence des leaders Yewwi Askan Cheikh Tidiane yu nekk cadre émérite un de valeur nit ku dëggu moo bëgg yéen ñëpp ngeen tàccu ñu Cheikh Tidiane yu nii non dégguma dara dama bëgg ngeen tàccu Cheikh baax li tax ma ne leen ngeen tàccul ñu Cheikh Tidiane Youm dinaa ci dellu si nit da fonk sa wasila fonk say waajur moo tax ma ne leen ngeen tàccu ko dinaa ci dellu ñu nuyu le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi le doyen Habib Sy monsieur le ministre d'État nuyu le président Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne moom moo ko jox Lengueï. Nous, le président Aladji Malick Gakou nekk it maire honoraire de la ville de maa ngi koy nuyu. Nous, suñu sœur suñu xarit di Maïmouna Bousso la Lyon. Nuyu tamit suñu yaay suñu xarit di madame la Linguère Aïda Mbodj ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant. ñu nuyu le président Ousmane Sonko le président du PASTEF am Cheikh mon capitaine ñaanal leen ko yàlla musal ko jàppale ko aar te ñëpp xam nañ fi may waxee nous l'ensemble des députés de la coalition Yewwi Askan Wi À le président Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire. waaye nag mention spéciale à notre cadette la plus jeune yàlla dogal mu bokk Pur di Soxna Ba. ñu delluwaat nag ci Massata Samb. ak Mouhamed ñoo ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal li tax ma ne Cheikh Tidiane yu nii moo capitaine ñu ñaanal ko li ñoom Massata def ak ñoom Mouhamed ñoo Cheikh Tidiane yu nii moo ko njëkkee te ci la dëkk parce que képp koo xam ne bëgg nga yëkkati xolu Cheikh Tidiane yum tuddal kilifa gi loolu moo tax ma ne leen Cheikh Tidiane yu nii te Sénégal nag leen rek lañ am suñu sëriñ daal képp ku bëgg ñu jàpp la fonkal ñu ko jàppal ñu ko te Massata Samb Massata Samb ak Mouhamed ñaa defuñu lu dul fonk sëriñ bi jàpp ko kese defuñu benn délit loolu moo tax tous les députés de Yewwi Askan Wi organiser conférence de presse te ñu ngi waaj a tamit benn sit-in devant l'Assemblée nationale pour la libération de Massata Samb ak Mohamed Niang c'est une décision qui a été prise dogal la bu ñu jël te dinañu ko def ci buntu assemblée fii ci Guédiawaye nag moo capitaine ma ne leen kon axlan wa saxlan soyez les bienvenus fii seen kër la fii seen dëkk la te ndam li it da ngeen dañoo tëdd ba guddi ñu ne sëñ bi nee na nañ leen def lii ci dog ak lii ak lii ak lii kilifa nekk fii en commençant par Khalifa Ababacar Thiam maa ngi koy nuyu mi nuy toog ak Ami Faye maa lay nuyu di nuyu sama mag bokk ci daayira bi di Ousseynou Aydara Diop nit ku baax ñu ne sëñ bi nee na nañ leen def lii ak lii ak lii yàlla may ñu ndam ci élection locale yi la xaw ko deful de man de ñu njëkk def ci laa bokk bi ñu demee député bi ñu demee député xaaruma ñu ne sëñ bi nee defaat leen dog yi defaat leen sarax yi man def naa bu yàgg moo tax nag ñi xamul ñoom ñooy wax waaye su ne Macky day dem rek Macky bu yóbboo waajal boppam te xam ne dem naa dem naa dem naa dem naa dem na dem na dem na dem waaw kon nag waaw waaw waaw kon nag mon euh, capitaine ñooñu ngeen bàyyi ñu fii si géejawaay bokk piir sant nañ leen gërëm nañ leen mooy tur yi ma la tuddal léegi jàppale nañ ñu sutural moo waxaat benn mbir bu ndaw rek daal daaneel keroog bi ñu réunion dañu ne président El Hadj Malick joxe na temps pour ñu jox ko siégeants yi les siégeants jour élection yi waa parti PUR ne ñun jéggal nañ leen ko ñun baal nañ leen kon yéen bu ñuy wër ay militants yu am valeur ay militants yoo xam ne kenn du leen jox tiset ay militants yu ñu ci diine ay militants ñu ñor ci siraatal mustaqim yan la allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim